dikkati naa seetoo seet tribune yéen kaay naan ma déeddu li nga foog parité la wal fu ko dijee naan kon fi mbir yi tollu dépassé nañu waxum seetoo seet ña nga nag ba le témoin yéen kaay naan kon kaay su dee diggante taxaw ak Benno Bokk Yaakaar de moom ngay waxal ma ne la ñoo raw mburoog soor jamono ji xam nga Idrissa Seck ak président Macky Sall def nan semblant mel ni sëy xam ne dañu koo daal di tas tasar maye baat amu ca nangu baat amu ca waaye daal fayantu am na cak bajjantu le témoin ne ma terewul nag fi mu toll nii moom Benno daal daal dinay takk seet PDS taxaw Sénégal la seet wi tudd Khalifa Ababacar Sall moo jiite ñey gunge seet wa waa taxaw nag ñëw sëy si biir Benno Bokk Yaakaar ànd ak seeni arme ànd ak seeni bagage maanaam arsenal daal waaye nag tibaale seeni militant daal di yóbbu tribune yéen kaay ne ma déet wax ja ko teg du fa bureau municipal bu ville bu Ndakaaru daal moo indi coow li parité bi nga xam ne nag moom moo daal di jagat jagate waa Pastef suqi leen bu dooni ginaar ba di seetuñu laaf daal di yokk doole waa taxaw di fexe ba Benno Bokk Yaakaar Walf naan kon fi ne diggante Benno ak Taxawu lépp ngi baax l'info yéene kaay ne ko man ni la Khalifa Ababacar Sall kay diggam ak Ousmane Sonko xeexoo bi lii nag la ñu daal di prolongé daal di koy jëmmal ci wil bu Ndakaar ni ki démb Abbas Fall na ñu daal di ne ko coppet génne ko ci bureau municipal bi jële ko ci premier adjoint au maire daal di fa yóbbu geneen soxna goo xam ne Ngoone Mbeng lay wuyoo bokk Taxawu Marie Rose Faye bu Pastef yéene kaay bi naan man def na kéemtalaay kàttanam waaye waa Taxawoo ëpp doole lëkkaloog waa Benno daal di faxasee Abbas Fall événement la fi mu ne daal Ousmane Sonko nu ñu ko libéré fexe mu doon candidat mooy sama priorité l'observateur naan kon ma ñëw Ousmane bokkatul de le mandat yéen kaay naan fañ nekk buñ fa jóg Barthélémy Dias fexe na ba sëyam tas diggam ak Pastef ak fi mbir yi toll amul benn waa Pastef boo xam ne yaa ngi ci tànku Barthélémy Dias di ko sonal Bart daal fexe na ba daal di leen faxas ndànk-ndànk Vox Populi naan maan moo taxit yeewi askan wi daal di nañuy mer ba futu daal di caxat caxatee Khalifa daal di koy dàq 24 heures yéen kaay naan maan conférence des leaders daal di ñoom Habib Sy nag daal dina ñuy dàq Khalifa Ababacar Sall ki ñoñam tuumaal leen nag dañoo war yeewi askan wi jagat jagatee dàq leen ci biir yeewi gaay yi yeewi yi nag daal ne fi mu ne wor gi nga xam ne Khalifa Ababacar Sall daal dina koy wor le regard ne ko déet moom Barthélemy Dias kay moo daal di doggali Pastef Vox Populi naan maan yeewi askan wi nag lépp jiiñ na ko taxaw Sénégal ndax nee na nag taxaw Sénégal mi nga xam ne keroog ba Barthélemy Dias bëggee falu daanaka Ousmane Sonko moo yenu élection bi campagnal Barthélemy Dias ba mar day taali Barthélemy Diaz am ndam tey jii moo war Ousmane Sonko waaye yeewi askan wi naan leen dootu leen ko defati yeewi moom daanaka da ngeen koy dégg rek waaye dootu leen ca bokkati jooy ak ree ca yam dàq nañ leen li Barthélemy Diaz ci leen fa yéene kaay naan leen bu ngeen ma ko jiiñee day def lu ñaaw ndax defuma ca lenn sama ngañ lii am yoon moo ko daal di dogal wa bureau municipal bi daal di koy appliqué critique yéene kaay naan maan lii règlement de compte la ay fayonte la ci biir yeewi askan wi ñu daal nag mel ni ku coup d'état Pastef saax-saaxee parti Ousmane Sonko bi di ko génnee daanaka ci langu politique bi ci réewum Sénégal l'observateur nan maan Ousmane Sonko sax génn na ci làng gi di moom Ousmane Sonko na daal dina ñuy faase turam ci liste électorale yi moom Sonko bokkatul lettre bu sous-préfet bu Ngor Almadi mu jébbal ko commissaire bu jëppal Derklé xamal leen ni nag Ousmane Sonko ci boppam dañ koo daan ci contumace Ousmane Sonko dañu ko atte nekku fa génn na ci liste électorale yi bokkatul yéeni kaayit futur média bi naan man moom Pastef sayal nañ ko Ousmane Sonko mënatul bokk ci élection ci réew mi maanaam mënatul wote moom Ousmane Sonko it kenn mënatu ko ci réew mi maanaam ci gàttal élection présidentielle yi observateur naan man Sonko mënta bokk moom Ousmane Sonko ci vox populi naan ña may jéem a fexeel de lu nañu teg ma ko waaye dama leen bëgg fàttali ne amul kenn koo xam ne mën ngaa fexe ba man mii Ousmane Sonko duma ma leader fexe ba man mii Ousmane Sonko du ma jiite mënoo fexe ba man Ousmane Sonko du ma jiite combat combat boo xam ne bu métti dee am ci man lay njëkk daal man Ousmane Sonko moo tax xiifal gi mu nekk Sonko ne du ko dakkal mukk da cay daal di wéy maître Cheikh Khoureychi ba naan Ousmane Sonko sonn bu yàlla sàkk nag ma ne la muy gën di loof moom Ousmane Sonko terewul ma nga naan xiifal gi moom da koy daal di wéyal libération yéene kaay naan maan ay ñooña mit di donte Ousmane Sonko nee na leen ñu dakkal ko Hannibal Jim fukki fan ak benn ngi nii mu nekk ci xiifal nee na nag bés bu ma faatoo ci kaso bi nañu xam ne góor gouvernement bu ki sàll moo ko daal waral waral su aane ma ñaar fukki patriote ak ñett nikki ki démb tëj nañ leen fekki juróom benn fukk ak lu teg nga xam ne tëj nañ leen yéene kaay ba tey ak tey juróom ñetti téeméer ci patriote di ay ñooñu Ousmane Sonko ñi ngi ci kaso bi waaj élection présidentielle yi Bokk Yaakaar fees dell ki candidat réew mi ko ñeene ko tegal foofu sa loxo ndax fi mu ne ñi ngi waaj ay élection Karim Meïssa Wade war wara bokkaat ci élection bi yeesalaat nañ ko waaye Karim nag ma ne la ndax mën na dabu li nga xam ne raw na ko ci réew mi moom Karim Meïssa Wade 2009 la gëj a bokk ci élection ci réewum Sénégal fukkeet ak ñeent gàddaay sori lool réew mi moom Karim ndax nag pare waat na ngir soobuwaat ci langu politique gi yéene kaay bi naan maan bu dee Karim Meïssa Wade am nay qualité la ko nar a ndëgg sërëxal day di défaut daanaka daf cee bari la lool moom doomu Abdoulaye Wade ji laaj wa mooy ndax Karim sa Wade mën naa dëkk kenn ci mim réew tribune naan man boobu Benno Bokk Yaakaar kay ña ngay wër seenub candidat fi mu ne nag ñi ngi ci ñett yoo xam ne kenn nanguwul bàyyee dara sa moroom Boun Abdallah Dionne ngoy na Abdoulaye Daouda Diallo ngoy na Amadou Ba ngoy na Amadou Diop ngoy na kenn ci ñoom laa wax kenn fasul yéene dem fekki moroomam moom président Macky Sall nag nekk fi mu ne ci guddi goo xam ni bër setagu ca Ali Mané député socialiste di njiital conseil départemental bu Nioro naan parti socialiste loo njaay la te fi mu ne nag aali sama gët man ko Amadou Ba te socialiste yi boo xaree seen xol yi daanaka ñoom ñëpp Amadou Ba la ñu faral l'enquête quotidien naan kon Amadou Matar Cissé nag fu mu féete ci géem bi yéeni kaay man kenn tudd ko de te moo ne day lu ne mën naa am le mandat yéeni kaay naan man Aliou Sarr candidat la ci présidentielle 2024 bi Aliou mooy candidat bu CAP 2024 yéeni kaay bi naan man nga jagat-jagatee programme jëme si gi fas yéene nag ni saraax ci Sénégal goo xam ne gu am jàmm la goo xam ne ñëppay booloo doon benn lay doon Dakar daal di wane programme boo xam ne soxna yi am nañ ci pàcc bu doy waar ña nga xam ne ñooy ndaw yi baykat yi waaye tam daal di ubbiwaat l'hôtel yi nga xam ne tëjoon nañ leen fas yéene ba tourisme daal di doxaat ci bët saalumu réew mi xam leen ni Sénégal li mu am ci meññeef mu jëm ci mbay mi mu jëm ci mine ak hydrocarbure Sénégal day mën na caa jaare tekki ba faaw l'indépendant yéene kaay naan man lii de la Bougane Gueye Dany wax Bougane Gueye Dany naan Sénégal li mu am ci meññeef moo ko ëppale France moo ko ëppale Espagne suñu amoon ay njiit yoo xam ne yu baax lañu yu am vision mën a yor dëgg-dëgg réew mi Sénégal day weesu na fii mu nekk bu yàgg bugaan géey dani ci yéene kaay bi naan ñi nga xam ne ñoo jiite système bi ñoo caxat-caxatee alalug réew mi jël ndawu Sénégal daal di leen di bàyyee seen bopp ñu desa yàlla moo tax bugaan naan nag loo ci manti déggit réew mi moom faaw coppite am fii tribune yéene kaay naan ko jiital conseil départemental bu Tambacounda du Kassé day daal nay dajale maire yi nga xam ne ñoo nekk ci goxam ngir nag ñu fas yéene soobu ci loo xam ne ñoo koy xàccee ndoo dóorandoo fexe nag ba Tamba jéggi sax koom ni nag ñoom maire yu Tamba ci boppam fas na nañu yéene lëkkaloo ak Mamadou kase ngir nag daal di joyanti nu mu gën gaawee Tamba googee libération yéene kaay naan kon booba sunu ndaw yaa ngi jeex ci géej gi barça wala barzaq gi day mi ngi mel ni tulleeg màlle yéene kaay bi naan maan gaawu gi juróom ci sénégalais daal dina ñuy faatu ci gaal goo xam ni dafa daal di këpp am keneen koo xam ni ban ko rawalee l'hôpital la daal di faatu ñaar fukk ak ñett ña nga ca l'hôpital ba juróom ñett ci ñoom ña nga ca urgence yéene kaay bi naan maan ca dax la googee nga xam ne ñu ngi waajal delloo si ay sénégalais fii ci réew mi